mbégte la am di jàkkaarloo yéen ci seen émission redevabilité ci numéro bu bees bi gërëm ñëpp sant leen di leen dalal ci seen chaîne Dakaractu TV tey jii ne nag ñuy dalal beneen honorable député bu nekk ci treizième législature bi di wuyoo si turu honorable député Yaya Sow honorable ñu ngi lay nuyu dalal. Euh, ñu ngi fay Badara. Mhm. ñu ngi leen fay di leen dalal fii aussi. Mhm. ci kër gi. absolument di leen sant aussi si déplacement bi ngeen ñëw. tout à fait euh, pour waxtaan situation réew mi. Mhm. ak li nga xam ne mooy information fi àdduna bi toll. information fi muy yóbbu. àdduna bi. ni muy jappalé aduna bi maa ngi leen félicité di len sant di len ñaanal aussi absolument ci liguey bi yalla jàppale len ci allahumma amin alors may fàttali ne au delà de député bi nga doon yo tamit yaay euh, maire bu commune bu Rufisque Escale nekk ci département bu Koungheul alors 13e euh, législature bi mom moy sa première fois ngay euh, ñëw ci assemblée nationale nam xaw nga yàgg ci politique tuuti ba nga donné maire 13e législature bi ñu investir la ci fi nga xamné mom modi moo Euh, nga doon fa député yow ak Fanta suma juumul alors ñu bëggoon a xam euh, sa dugg ci biir assemblée nationale tey jii nii euh, jamono ji yéen a ngi vacances alors liggéey bi nan nga ko gisee est ce que tey yaayaa ba muy doon citoyen simple nek don dégg député ak li mu doon dégg ci ñoom ba nga duggee ci biir nekk ci mbir mi est ce que li nga doon dégg ak la nga gis ak li ngay dund benn la merci d'abord damay y a leeralaat ci e législatif la nek député l'Assemblée nationale euh, nek tête de liste du département bu Koungheul en 2017 ñu installé ñu 6 mois de septembre 2017 waaye bul fàtte aussi nekkoon naa conseil économique social environnemental 2012 2013 mhm. mhm. te ma def ci 4 ans ma soog a mhm. nek 4 député parce soo ko koolee affaire bi yëpp benn la. benn la mhm. ci liggéey jokkalin bi. waaw te aussi li nga wax ci bi ma nekkee citoyen li ma doon gis ci assemblée nationale ndax euh, méngoo na ak li ma doon gis. Mhm. wala méngoowut ak li ma doon gis. Mhm. Euh, man bi ma nekkee xale dama amoon ambition pour doon député la l'assemblée nationale parce que. li tax bi ma nekkee kale ma def dama gis dama don set, dama don xool aussi mhm. te àdduna njàng la ba mu jeex te xam nga man sama niveau ci politique ci assemblée nationale la ëppee doole mhm. parce que awma yenn diplôme yi mhm. ba ma mën don ministre de wala ma doon directeur général poste politique ci député la nek te dama amoon ambition don politicien. Mhm. dama do nekone aussi amon ambition pour don député don maire. Mhm. loolu liko waral moy euh, poste du yak. Mhm. nit ki moy yak poste bi. parce que lima don deug amna lu ci nek deug amna lu ci nekou deug te buma ci don kam. kon li am solo dal. mooy nit ki fu mu nekk na seet nan lay def bi yokk capacité am ci métier parce que boo nekkee ci métier te yokkuwoo yaa ngi wàññeeku te man yokkute laa bëgg en tout cas assemblée nationale ricuma li ma fa nekkee ci foofu damay féliciter d'abord monsieur le président de la République Macky Sall mi ma choisir def ma ci tëdd liste si Benno Bokk Yaakaar bu départemental bu Koungheul. Mhm. waaye maa ngi félicité aussi waa département bu Koungheul ñi nga xam ne ñoo jël seen carte woteel ma ba ma am 62 pour cent. Mhm. parce que soo xoolee treizième législatif. 62 mhm. pour cent. département Koungheul nekk na ci sixième département yu pour am yëri résultat yu gën a baax. ci Sénégal ci Sénégal. bon maa ngi félicité ñooñu. taxawoon. jàppa ci du mu agsi foofu absolument loolu mooy mhm. kaddu yi nga xam ne ma ci wax tout à fait alors euh, honorable comme li sénégalais di wax député yi salaire bi ñu leen di fay est-ce que mérité nañ ko waa wala déet bu ñu sukkandikoo ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def est-ce que gis nga ne liggéey bi tey jii nii mhm. salaire bi ñu leen di fay mhm. jar na ko wala jar na lu ko ëpp bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne moom ngeen di toggal askan beek liggéey bi ngeen di def ci li ñu gis ak ci li ñu gisul waaw xam nga Badara àdduna bi àdduna bi jeex. Mhm. kenn ku ne ku amul dara day kool ku am dara. te aussi dafa am ñoo xam ne dañooy waxee ñàkk kam mhm. aussi am ñoo xam ne ñu ngi waxee pour añaan. Mhm. dafa am ñoo xam ne ñu ngi waxee aussi pour si bugg a siiw. loolu moo fi am. waaye soo xoolee député de l'Assemblée nationale koppoor yi ñuy jagleel réew mi. yéen ñi presse bi bokk ngeen ci képp ku nga xam ne yaa ngi yeewoo ci réew mi budget bi ñuy defar ci réew mi ñun ñoo koy càmbar jagleel la ko nga dem man ci def tali man ci def courant man ci def hôpital man ci def ambulance man ci jàpp fay salaire man ciy def leneen ak leneen ak leneen bon ñooñu est-ce que député am na budget député amul budget bon su fekkee dañoo jóg député di bigse ñu ne loolu député yelloo wut ko mhm. parce que yow yaay seddale sedda nga sa bopp waaye nag wax dëggam yàlla nag li lu ñàkk fulla ñàkk fulla te ñu nekk ay sénégalais mhm. ñu wote bigse di fay ay nit ñu ngi leen fay salaire mhm. ñuy jël ay député ñu ne liñ koy fay dafa bari loolu soo ko koolee mooy kooku di wax bëggu réew mi wala bëggu ci réew mi walla li li li nekk ci réew mi la bëggut mu nekk fii jàmm parce que soo koolee député amul budget amul fenn fu mu mën a sàccee alal. amul benn fond de caisse. amul benn fond de kes te xaalis bi yëpp député rek moo xam te tey ngay yee guddi mu wax la budget Sénégal ñaata la ministère bu ne ñaata la ministère boo dem budget am la xam. Mhm. boo demee ci direction budget am la xam. Mhm. waaye député boo yee bu diaspora bi ak bu nekk ci biir réew mi. koo ci woo téléphone mën na la wax budget Sénégal taala ministère bu ne lii la am. maanaam xam ngeen xam ngeen li Sénégalais yu bëri xamul. waaw te yéen ko toogaale doo leen ko wax. te ñu ngi ko toogaale te waxuñu ko. tout à beneen bi aussi. Mhm. am na ñu ngi woote budget bi. am na ñoo xam ne li ñu leen fay mën na fay juróomi député te loolu waxuñu ko. te ñu ngi ci biir réew ñu ngi ci biir réew muy ay directeur ak yooyu. te ñun ñu ngi nekk doomu réew mi ñun ñu ngi nekk doomu réew mi. Mhm. te ñun aussi population bi ñu fol. du par décret. Mhm. population bi la fol dañoo am soxla. Mhm. soxla boobu nga ñu lañ am nag parce que député liñ ko uutee mooy dafa war nekk modèle. Mhm. dafa war am sutura. dafa war nekk am critère yoo xam ne. yi jikku yu baax yépp yu daje ci doomu aadama nga war ci rampale quatre-vingts pour cent. absolument da ngaa war am sutura da ngaa war a aussi gëm yàlla. Mhm. aussi da ngaa war a jàpp sa réew jàppale sa réew. Mhm. loolu mooy liggéeyal sa réew. tout à fait loolu nag jaamu yàlla la. absolument bon loolu mooy député. Mhm. waaye nag fi mu nekk ni réew mi dañoo nekk ci situation yoo xam ne euh, coow bi bari na. comme li ma la wax. Euh, ku amul ak ku kamut ak ku añaan ñoom ñetta fu ñuy waxee jàmm du fa ne ñooñu ñu wax ñooy toog. di wax député yi li ñu leen ay jox. jaaduwut parce que lire naa benn article. ñu ne député yi li ñuy lekkaliwut te moomu ko wax moom mi ko wax. mu bind soo xoolee soo xoolee si histoire am wala fi mu jóge wala fi mu bàyyee ko. est-ce que moom nekk na model ci réew mi. parce que loolu aussi jar nañ ci wax. absolument te man damay éviter Sénégalais yi. Mhm. wax dafa baaxut. wax benn mooy ci baax mooy bu yem te buy defar waaye lu ëpp tuur absolument waaye dañ koy waaw ni ñuy defee mhm. mooy toog député yi li ñuy am lii la député yi seen salaire député yi mais pourtant député bu ne parado la am député yi parado la ñu am mhm. am na ñu am ay V8 mhm. am ay parking seen carburant ñaata million la waaye pourtant député yi waxuñ ko te kenn waxul ñëli seen bos te pourtant député man nañ taxaw ñu ne loolu dañ koo war a setat waaye est que mos nga dégg benn député bi ko ah, bu ko bu ko wax. mooy sutura bi nga wax il faut que am si ñoom. voilà absolument alors euh, bu weesoo loolu ci biir assemblée nationale bu ñu fa desee ba léegi. Hmm. sen diggante ak opposition bi souvent ñu togn leen ak yoy noonu. mais li ñu leen di gën a tooñee yeen yéen. yor majorité mais majorité mécanique la. Sonko sax dañ na bané ne. Euh, yéen président bu bu bu indee dara. décret do leen sax xol da ngeen di gëm rek né comme que président de la république mom moko indi. da ngeen koy voter est ce que moment bi ngeen di voter parfois di ngeen xol sen diggante ak askan bi. wala da ngeen naan yeen député. Euh, majorité présidentielle ngeen. avant ngeen di doon ñi nga xamné ñom ñoy ñooy ñu toggal ndaw askan bi fofu waaw xam nga ki nga wax man sawaruma tudd ko sax. ah sa collègue député la yéen a bokk assemblée de. waaw mais du sama collègue kooku man nawloowuma ko ba mun na ko sama collègue xam nga kan mooy sa collègue ki nga nawloo. Hmm. man nawloowuma ko ci ñaari côté. Hmm. benn bi am na bi may départ li ma wax mooy boo doonee député da nga war a am loo remplir. Hmm. ay critères ay critères. parce que soo xoolee histoire réew mi ab depuis Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade mosoo gis député majoritaire buñ ŋañuwut parce que ñaar ñu war jiit force su am ku yuuku te ku mhm. fare gànnaaw mooy yuuku mhm. ñoom buñ amee seen sago ñun duñu am suñ sago léegi dañuy bëgg a lépp loo xam ne day baakaar réew mi ñu indi ko ci loi assemblée nationale ñun ñu bañ ko réew mi yàqu ñu ne voilà réew mi doxut mhm. loolu mooy seen objectif ñun population bi ñu fi teg ñun ñëwuñ prix reste mhm. ñun dañu dañuy woteel si département yi population bi ñoo ñu woteel te bi ñuy woteel dafa am lu yaakaar si ñun xam nga soo waxoon ne moom ci département Ziguinchor mhm. la gagné ñëw assemblée national ma ne waaw sama collègue la mhm. waaye moom nekkut génnewut ci département ci asaka asaka li ñu woote liste nationale ci asakab lañ leen génne. mooy plus bi nga wax. waaw forest ana fu ñu génne man loolu ñooñu dama leen naw loo wut waaye des fois mënuñu ñàkk rek. Mhm. may daje ak ñoom ci benn place. boo gisee man bi ñu nekkee assemblée nationale buñ ko joxe ay discours damay génni dem parce que dama ko naw loo wut man naw loo wuma ko ci fenn. parce que man bu ma doonoon di ut réew. Mhm. du ma dem assemblée nationale doon député man. parce que nag. boo mhm. buggee doon réew. bëggoon yore réew dafa am critère boo war a remplir bon foofu kooku duma tudd sax nu mu tudd ak wala nu muy def. Mhm. waaye dama lay waxal daal du modèle du royukaay loolu ma wax la ko ci. absolument alors. Euh, ñu jóge assemblée nationale bi yoon euh, waaye ñu waxtaan ba léegi ci li nga xamante ni moom moo di actualité politique bi cooli bëri na rawatina ci seen biir parti bi nga xam ne moo di APR rawatina coalition Benno Bokk Yaakaar journaux yi bëri nañ li ñuy bind tele yi di wax rajo yi di def ay reportage naan jamono ji yéen a ngi ngàññante parce que dangeen a gis am na ñoo xam ne tey jii fauteuil yu Macky sàll bi président de la république fa mu toog la ñuy xool ndaxte gis nañ ne président ñaari mandat lañ amoon jeex na fu nekk nii ku nekk yaa ngi commencé di jéem a talalal sa boor ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir APR boo fa mënee xëcc ñoo xam ne mën nañoo ànd ak yow ngir nga préparer remplacer Macky Sall est-ce que tey jii fi réew mi toll juróomi at ngeen war a def benn at ngeen dafa gum mu dese ñeenti at. tollu ngeen foo xamante ni war ngeen di xalaat kii war a remplacer Macky Sall buñ ko méngaleeg jafe-jafe yi nga xamante ni tey jii nii yooyu ngeen war a mën a régler ngir am bilan waaw kam nga badara damay bëgg toujours c'est mhm. député la à l'assemblée nationale ngay waxal aduna bi yëpp ñu ngi ñuy koolaan aduna bi yëpp ñu ngi ñuy déglu mhm. bugguma wax lu leerut mhm. bugguma wax lu lendem lépp lu may wax day leer man ku ma xam xamee na ma ko waaye dama bugg nga wax ma diw ak diw ñoom ñoo bugg toog jël toog président de la République après man ma dugg ci domaine bi. mais xam nga nag bon am na lenn loo xamante ni peut-être yaaya du ñu jox journaliste yi lépp mu mu doj. mais di nga gis kenn koo xamante ni tey jii nii dina génn. bu ñu jëlee ku mel ni Maodo Malick mbay bi nga xam ne moo dirigé ANAMO. taxaw na fi tuddul tur. mais dafa ne li ko gën a métti mooy. Mm. ñu bëri ci biir APR jamono ji mm. liggéeyatuñu ngir askan bi mm. liggéeyatuñu ngir président de la république. waaye dañuy liggéeyal ngir seen bopp. ngir ëllëg bu fi président de la république jógee. askan bi mën leen wax kii moo fi nekkoon di def lii. parce que instant bi ñu gëtu président waaye photo yi fu mu toog ngir remplacer ko. kooku moo Maodo Malick Mbaye moo ko wax mhm. te moom mu ngi bokk fi nga xam ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne yéen ñëpp yéen ko bokk mhm. naam sax tuddul ay nit mhm. mais nee na loolu am na être aussi yow mën nga bokk ci li nga xam ne moom moo di euh, coalition bi te doo yëg lu xaw loolu lu am mais tey jii nii bu fekkoon demoon nga ba xam ne loolu dëgg la est-ce que war na moo xam ne dafa war a mën a nekk jamono jii nga xamante ni liggéey réew mi moom moo jox politique politicien bi war nañ ko teg ci gannaaw parce que élection présidentielle weesu na te beneen élection ñëwul waaw merci xam nga man Badara li ma la wax la euh, ñi nga xam ne dañooy toogaay photo président bi mhm. suñ borom moo ko moom bugga ko mhm. tàng nga jot ko bañ ko du tere nga jot ko suñ borom moo koy jokke mhm. waaye man damay wax yàlla na yéeg pour mu jóge fii yàlla na yéex waaw Macky Sall waaw pour mu jóge fii. ah troisième mandat moom mënatu ko am. ah troisième mandat ak deux mandat ak man damay laaj ne. Mhm. na yëg parce que xam nga réew mi. Mhm. ñun li tax ma wax ko président Macky Sall fi mu fekk réew mi. Mhm. ak fi mu ko yóbbu ak ko dafa ngineel ci Sénégal yi man aussi luy Sénégal bi ci kër kër gi ci ngor. waaye ku fi nekk. Mhm. ci gouvernement Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ñëpp taalibe Macky Sall lañ. taalibe nag boo ko deggee sëriñ am. Mhm. su sëriñ bi nekkul fii taalibe du fii ne. sëriñ tey bu mu jógee fii. nekk. waaye li nga xam ne moom lay artu. mooy Benno Bokk Yaakaar ci ngor lañ àndee nañ ànd ci ngor. ba fu ko yàlla yemale. waaye wax yi ñu wàññi ko. ñu dem liggéey. parce que Macky Sall. deuxième mandat biñ ko wax amagul at ñaata weer. Mhm. weer la am. Mhm. bon weer juróomi at kan moo xam ku koy fekkee d'abord kan kenn xamul ku koy fekkee ëllëg ëllëgu yàlla la loolu li koy def mooy ñaari mbir ñàkk a gëm yàlla ak ñàkk a ngor. Mhm. mooy nekk ak néeg nit nga ne kii bu dee ma doon na jabaram. waaw mais man nga dee yow moom mu fekkal koo xam ne mooy doon na sa jabar absolument mu dem yoonam tout à fait parce que ni ko yàlla indee ba moom mu boon ñëpp kejal ñëpp war nañ am ngor bu mat sec bootu ci gànnaawam ba mu liggéey ba pare parce que taalibe taalibe nga mën a doon dañu yeewi la nag mhm. wala ñu ñaanal la man loolu laa gëm mhm. waaye nga nekk ci gaal bi bu gaal bi surub bul séentu mucc yow mhm. te xam naa leen président de képp ku ko yéene lu bon Sall mi ma xam. Mhm. ku ko yéene lu yàlla xam na ne yaa ci jiitu. à 2018 wax naa ko. Mhm. c'est le premier tour laa wax Macky dina passé. parce que suñ borom moo koy jàppale ci yéeneem. Mhm. parce que àdduna a yàlla yéen rek lay fay nit. waaye li ma xam ne man xam naa ko gëm naa ko. benn leader laa am mooy Macky Sall te ne dana ànd ak moom ba mu ñaanal ma. Mhm. wala mu yeewi ma. keneen nag mënuma ko a garanté. Mhm. waaye li ma leer. Mhm. bu ñëpp meloon ni man président de la République dana nekk fii ba mu jël nit taaj ko mu ne diw mii laa jóg na toogaat fii. boobaa kooku ngay àndal yow. man. man bu jëlee koo xam ne mu ne kii. laaj tooy fii. parce que xam naa ne du tànn koo xam ne du intérêt réew mi man. absolument man kooku lay àndal. tout à fait alors ba ñuy euh, door émission bi maa ngi naan bu weesoo député bi nga doon yaay maire bu commune bu Ribot Escale. Mhm. Euh, diggante Koungheul ak ribo mhm. 52 kilomètres la wala euh, fu mu toll ci kilomètres. 50 kilomètres 48 kilomètres 50. mais dem fa métti woon na trop bu fekkee yorewoo oto bu baax. waaw bokkoon na ci say plaidoyer saa yi fa autorité ñëwee. Mhm. li ngi leen njëkk ñaan ñu defaral leen moom mooy yoon bi nga xamante ni jafe-jafe bu mag la woon. Mhm. fa fan la toll. tey la gën a métti yoon boobu ngay wax tey la gina a métti tey lañ gën a soxla ndimbal ci yoon boobu parce que 48 kilomètres la. Mhm. waa tey boo koy def. da nga def quatre heures de temps ci yoon bi. rawatina nawet bi. nii nii nii bu tawee oto benn oto du jàll. man xam nga sama wax. Mhm. du ko nugg. Mhm. li nekk rek laay teg ci taabal bi. parce que aussi du ma plaider loolu duma ma plaider lu ma xamut du ma wax lu ma xamut. Mhm. waaye yoon bi moom. bu gën a ndimbal te ministère bi yore yoon yi. mooy Oumar Youm war na dem koolal boppam lu mu demee. su doon man maay ministre infrastructure mhm. transport mhm. danaa dem kool mais kay yomb na yow léegi booy demati weekend da ngay jaar caajaay rek wàcc jox sa tug dugg biir këram wax ak moom waaw xam nga damay wax <laughs> uh-huh. ci télé laa toog di wax tout à fait parce yoon bi du sama yoon mhm. yoonu réew mi la te doomu réew mi a ci aw te am na ñuy bëri ñuy jaar ribo ribo ngir dem ci yeneen i ay dëkk yu nekk ci gannaaw la parce que Koungheul Linguère la yoon boobu moo koy ubbi mooy Koungheul aussi Ranérou Ferlo yoon boobu moo koy ubbi mhm. mooy aussi Koungheul Fouta yoon boobu moo koy ubbi mhm. aussi mooy yoon Koungheul mooy Ribo mhm. Touba Mbacké Touba Mbacké Bakel Carrefour la bon yoon bi dafa nekk benn yoon ginul ko nekk priorité tey ci réew mi te ne suñ ko amee war na nekk suñ ko amul war nekk waaye nag suñ borom mooy jox du joxe. Mhm. ku mu ko jox nu mu ko joxee noonu lañ koy jotee. tout à fait waaw tey moom. Mhm. tey bu tawee nii nii nii. Mhm. oto du dem léegi léegi da ngay taxaw kaar. bu bu buñ jógee Ribo dugg biir euh, Koungheul. Euh, ñu bëri sax boo leen naan yaaya euh, Ribo lay fanaan duñ ko gëm. parce que dañ naan waa mais yaaya moom tànkam dafa bëri Koungheul. Koungheul lañ lay fekk presque booy recevoir si lu bëri Koungheul boo koy defee bëri nga tànkal ko tànk Koungheul. alors lan lay joxe. Hmm. dafa am li nga fa namm. dafa am li nga fa bëgg parce que naam sax daal dinañ renvoyer li nga xam ne moo di élection euh, locale yi. ñu hmm. koy waajalaat. Hmm. est-ce que yaayaa tey jii bëtam dafa ne peut-être ci commune bu Koungheul wala conseil départemental daf ko intéressé wala liggéey bi la desee Ribo ba léegi euh, noppeegul bëgg nga doon naan maire fi nga xam ne moo di Ribo. xam nga man Badara li ma la wax sànq. lu jotul du ma ci wax. suñu borom. moom wax àggale suñ mayee suñ borom la waaye xam naa leen ne mhm. département Koungheul waxuma la def commune Koungheul waxuma la département bi waxuma la commune beneen mhm. département bi mhm. dañoo bugg a tagawaat le tous les collectivités locales yore waat ko pour ñi nga xam ne doomu département bi ñu mën a jàppale doomu département bi niñ ko war a jàppale benn ñaareel bi liste communale ak liste département. Mhm. jotagut. Mhm. waaye xam naa ne bu jotee danañ bodewaat. Mhm. bode moom. soxla nañ ko ñeme nañ ko bugga nañ ko man nañ ko aussi. waaw parce que population bi. fépp fu ñu feetoo mhm. man yaayaa foofu laay feetoo mhm. lu population bi feetoo man du ma ci bokk kon yow décision bi nga war a jël lépp mu ngi dépendre ci askan bi nga xam ne ñoo fa nekk mhm. lii nga war a doon loolu laay jël bu ñu toogee ñu ne ma décidé nañ soo waroo ci nekk dara man damay nekkaat seen gànnaaw parce que dumuñu ma a ma toppaat seen gànnaaw waaye ñoom képp nag ñoo am makaama boobu keneen amul ko absolument alors question bu mujj. Euh, gisoon nañ la laata élection présidentielle yi commencer commencé nga daal dit woote rawatina leader yi nga xam ne ñoo fa nekk ne li gën a jàmp mooy de mm-hmm. booloo ngir nga mm-hmm. président de la république. Mm-hmm. naam sax dañ naan Koungheul dekk bu ndaw mais Sénégal foo tollu da la c'est une ville très politique. politique ba dëpp métti jàppal est-ce que tay jii ni jàmm jooju ko wute woté won euh, élection yi passé na. mom moy wéy ba légui wala. tey jii am na leen loo xam ne war ngeen ko faa regle waat. Mhm. waaw kam nga jàmm waxuma la politique bi département bi jàmma moo ci baax <laughs> parce que jàmm nag mooyu ndi mooy yaayu am-am lépp loo am ci àdduna te amoo jàmm mhm. baaxut balaa ngay kam jàmmaa nekk mhm. nga nekk ci jàmm bi yàgg nga def toj-toj da nga jóge ci sa waaw nga jóge si sa manin mhm. nga jóge si sa doxalin nga jóge si sa waxin bon nañ yàlla jàmm la yàlla bugg mhm. boobu nañ war jiital loolu awaa politique man toujours damay ne politicien yi fi ne mhm. nañ ñëw ñu ànd nekk jàmm nekk ci jàmm bu kaccoo jotee nag ñu soog kàccoo parce que bu dëj jotee ñoo koy bokk bu ngeen jotee ñoo koy bokk waaye bu ceet jotee aussi ñoo koy bokk waaye ñi bokkañ nag ñooy xeex bu jotee ñu xeex waaye nag tollaguñ ci moo tax may woote jàmma tey laa gin a woote jàmma mhm. tey laa gën a woote jàmm waaye xam nga landa ñaar du ñu mës a juboo ci àdduna ku xam ne yàlla am na ak ku xamul yàlla amul mhm. duñ mas a juboo parce que yow xam nga yàlla am na. Mhm. kii mu ne yàlla amul boo ko fekkee yow joge nga ci li nga gemoon moom bu la fekk du la ne bu la fekkee moom joge na ci lu mu nekk te nangu ko bon jàmm du ci am. maanaam kuy nangu ndogal ak ku dul nangu ndogal. voilà département bu nga li coow bi bari bari man la rek. ah bon kon yaay moy déranger. ah waaw parce que coow bi nga ci dégg ci kan la génn. mais yaay nan la mën déranger un jeune de kii ñëw fi ni rek bëgg déranger pourquoi. waaw dem laaj na la ko parce que yaa ngi fi ya am nga information yépp coow bu mos am ci département ku Koungheul ci Benno boko Yaakaar. Mhm. yaayaa la ñoy wax parce que lan moko indi moy ñaari bir moy benn. yaya dama ko fekk fii mu jàng naa ko man kadar laa te kam nga kaadaar koo gis kaadaar la <laughs> ci domaine ci domaine mhm. am ñoo xam ne dañooy jaay ay diplôme lañ yore te tekkiwuñ dara mhm. si sama côté man moo tax duma juboo ak ñoom c'est ça le problème amul benn problème bu ci am tey tey bu ñu élection rek encore élection tey tey bu ñu ko organiser man ñeme naa ko population bi daal fu ñu feetoo rek man maa ngi ci ko tam du ma nekk Dakar du ma aw ma kër Dakar bu may tedd aw ma kër feneen Koungheul laa dëkk wax nga ne biir Koungheul toujours foofu laay nekk parce que ay kër laa fa am te luyewu ma ci benn kër yëpp dama ko joxe loolu lu ko def mooy askanu département bi moom ma intéressé man leneen intéressé wul ma gis na man Batra département bi taxaw parti taxaw ba may tànn département bi ànd ak moom. loolu leer na égal Koungheul Koungheul égal man. loolu leer na. waaw loolu foofu daal laa ko jàpp. émission bi jeex na yaay lan mooy say kaddu yu mujj. sama kaddu yu xanaa ma dafa gàtt wala gudd na. non gàtt na gudd na dafa gudd kay parce que li ñu war a wax. si benn minute rek mën nga ko ci wax. Mhm. li ginna am solo mooy waxal lu nit ñi dëkk. loolu moo am solo. tout à fait euh, fi may tàggatoo rek. Mhm. mooy fi ma commencé. absolument pour féliciter leen. Mhm. sant leen aussi ñaanal leen. Mhm. ma kan ma ma wax leen ne. man maa ngi nekk ci seen disposition. absolument lépp loo xam ne day defe réew mi. ci communication. ci développement. ci lu ne. man pare naa pour nekk ci loolu. parce que nag ay ndaw lañu ñoo war a tabax réew mi réew mi du tabax boppam. sénégalais lañu ñoo bokk Sénégal ñoo war a defar Sénégal. man li may tàggatoo mooy nit ñi nañ yéene wante jàmm. nit ñi nañ ànd ci jàmm nit ñi nañ dal ñu xam ne suñu borom mooy joxe joxe na nguur nañ gunge ki nga xam ne moom la jox ñu bay ko mu dal mu liggéeyee kolam liggéeyee xelam ñoom Sénégal mën a génn ci situation bi mu nekk. parce que situation mooy lan mooy jàmm bu amul situation am na ci réew. te situation bu amee ci réew. Mhm. yow mi ko créé ak ki nga ko teg yëpp am nekku leen ci jàmm. kenn du si mucc bon yàlla nañu yàlla defal jàmm. yéen ñi ñëw fi aussi yàlla na leen yàlla delloo ci jàmm. maa ngi wax ne Dakar Actu mhm. dafa nekk sama. Euh, sama kiw bopp. surtout bopp surtout bopp. Mhm. parce que l'événement bu ma mën a def. Mhm. Euh, ñu ngi ci ñu ngi koy courir sànq wax nga ma yaayaa. Mhm. Euh, lu may xewle dana ñëw. loolu bon lu tey laa bokk ci Dakar Actu. te dama kees dama ciy continuer. pour lépp activité bu may def. du bokk ak ñoom ci mbir mi bu bëggoon bu directeur bëggoon sax ma nekk actionnaire ci affaire bi <laughs> parce que maa leen di sant di leen gërëm <laughs> absolument alors Yaya ñu koy gërëm di ko sant honorable député Yaya Sow moom mooy maire bu commune bu Ribo Escale nekk ci département bu Koungheul laata loolu euh, conseiller la woon fële ci nga xamante ni moom mooy conseil économique et environnemental moom lañ ñëwoon tey seet si si numéro spécial bu redevabilité bi gërëm leen grim également technicien qui a xam euh, à la bonne réalisation de cette émission jox leen rendez-vous avec un ak honorable député comme nous le koy d'ici là l'information continue sur la référence Dakaractu merci